Marfal Diagne nekk fii ci Nouakchott ci Riyad di doomaanu Garak ci ki nga xamante ni dafa yittewoo lool li di aada cosaan bu tax na mu si yëngu di si dox ba li nga xamante ne mooy aada cosaan mën a dekki bu ne nag bari na fànn te mu fànn mu yëngatu mooy fànnu médecine traditionnelle donte sax du fajkat yitteem mooy nit nga xamante ni moom médecine traditionnelle xam njëriñam xam soloom. lu tax ñu am xalaatu def musée bi ngir weesaare liggéeyu ñooñu ak xamal askan yi ni leen kat amul lu ëpp solo mbiru paj amul lu ëpp solo paju aada ak cosaan. donc médecine traditionnelle léegi fajum cosaan bare na ay fànn am na yoo xam ni sunguf la am na yoo xam ni xànce la am na yoo xam ni xob la am na yoo xam ni euh, ay xeer la am yu siy def am yoo xam ni ay cangat la ak yooyu ñuy jëy ay ndaa def ci donc bu dee si yeneen ñi dañ koy wax xàmb yooyu mais li mu jublu yëpp mooy faj nga dem ci alxuraan bi dafa am yu bare yuñ ciy jële itam di faj comme ni ma ko waxee boo jëlee paftum bi par exemple fees na fi mais ndax nit ñi xam nañu njariñam ay njëriñ yu bare ci nekk ci xob yi ci meew mi ciy génne ak ci doom yi yëpp dafa am yu bare yu muy faj su nga boo daggee léegi fii nga jël dem ci paftum bi léegi dagg soo mi di génn nga def ko ci nii def ko ca dina metti lool mais foofu la yem ci saasi man duma tradipraticien maanaam duma fajkat cosaan mais homme de culture la et la médecine traditionnelle dafa bokk ci suñu patrimoine culturel